bari na musuma si làmb dinaa waat si combat eh, barki Seydina Mouhamed. barki Seydina Mouhamed. barki Seydina Mouhamed. na waat day daan. day waat barki Seydina Mouhamed neexee ak bu neexee par force dama lay daan soo dëggalee sa dama lay daan. wooteel wooteel. papa wooteel wooteel. Moranda. waat waat soo ko def lii lan la dégg ne da ngay daan li ma leen wax mooy jàmm gi na woote. man xam naa li may def. affaire daa bëgg yàgg fan nga ko teg waat bi fan nga ko teg. waaye fan nga teg nga jàmm déedéet déedéet grand. xoolal maa ngi wax ni instant bi kenn ku nekk naan ma li ngay wax li ngay wax li ngay wax man gaa man sénégalais yërëm ma liñ ma a yërëmee ba nañ ma liñ ma war a yërëmee ba pare ma waxaat ko nañ ma ba lamb lu dul gëm ak pas-pas amul ci lamb ak gëm li ngay def waat bi teguma ko ci gàllaaj teguma si maa ko ëpp doole teguma ko si dara dama xamne dama wara dan te dama mérité pour dan te nani Fall dama koy dan si kàttanu yalla loolu am naa si am na ko ko ci si doole si lan parce que man bi may bëre ak Nokia bi may bëre ak Nokia ron ron aronu sal dafa bañon combat bi Arona Sall damaa wax jëm jëm kaw jëm suuf mune ma do bëre Nokia. Ya? parce que mu nekk yaa yow si defet yi nga toog moo lëpp doole affaire yooyu sam benn grand bu ñuy wax Bakar commando mu ngi ma muy muy Mali maa ngi man ak moom combat a juboo man ak moom sama gars yi fi nekk yëpp bañ combat bi ma ne leen ma jël ko leen ma jël Nokia man Nokia xool naa ko ba gis ko xool naa si moom loo xam ne xam naa ne pour mu daan ma du yomb su ma préparé moom du ma daan Cheikh mm. may ñun jàmm yaa ngi bi ma jëlee Nandi Fall ñepp dañ ne bul jël Nandi Fall Nandi Fall su démé seetaan sama combat ak Nokia su démé xol combat bo na ci jël roper ça veut dire da nga bëgg a guerre. maanaam damay jëflante ak Nandi Fall. kon Nandi amna ko man ni ma koy waxé encore une fois. dama koy wax man dama gëm yalla ah. man Nandi Fall dama leen koy seetaan interview yu ma def yëpp. avec sérénité lay waxé ak mom pour war na ko problème. manam man may nek à l'aise maanaam nekkuma ci benn détail combat la boo xam ne man pérection jeex na si man. kon da laa jaral. waaw maanaam pérection affaire bi maanaam jaral bi weesuwul ma jël Nandi Fall maanaam man su ma gëm-gëm ak su ma pas-pas. ele vai checar. pooj daa lool. déedéet. lamb ji concentration la laaj Babacar. soo merci jël nako jël nako jël nako ña ngay béré dañuy béré ña ngay béré papa taanu nga. papa taanu na bayu béré béré dañ koy jàng kii jàngul bëre. même tole ne wu. Lamine même tole ne wu fii. ça c'est du jamais vu. Lamine même tole Papa Boy Djiné tole ne wu fii. doole ne wu fii. Lamine ki na jangi béré way même bu mënee bëre gisuma doole man Babacar. jëm kii na dem jàngi bëre waay. gisuma doole gisuma doole. ah lii ma gis neexuma waay parce lii ko daane doole amu fi. c'est trop facile. Lamine doole fi newul. c'est trop facile. Lamine doole nekku fi. Lamine Lamine lii dafa yomb ba mu ëpp. doole amu fi. mais yow kenn dóorul la. ah oui. ñu jàppale rek wañ nga tëdd mel ni ja eh, koo xam ne dañu la lal baa ngi nii. action bi sax moom da doon def daa mel ni lu def ah, kii na xoolaat boppam. ah oui andiwul doole de. ah doy na waar doy na waar doy na waar. mais léegi gisuma doole war a xoolaat boppam. doy na waar doy na waar doy na waar doole mais dafa mel ni ba jàngul bëre. et puis papa daa mel ni bu dee ci biir kii. doy na waar doy na waar en tout cas daal doy na waar. mais nekkoon ni mbokkam tey dinaa wut yet lapp ko bu baax. ëpp naa def ah oui. jéggal ko rek ëpp naa def ah doy na waar doy na waar vraiment ah doy na waar yomb na trop. wala lamin li yomb na yomb na yomb na. moom waa ji yóbbu ko sax mu daal dem jaaxaani. kii daal bu ma doon entraîneur bi tey jii yaru fas laay wut. ah kay per per déedéet. xiir gu saf sap Bara Couture maa ngi lay ziar bu baax a baax. xiir gu saf sap laay wut boo xoolee per. Ndandi Fall dafa mën a bëre. ah da ko doon yóotu plaqué de. non da ko doon yóotu plaqué da ko doon yóotu. xool action xool action léegi nañ xool action bi nañ xool action bi oh. waaye bi ban plaquage nii la ñu plaqué. nii la ñuy plaqué ah man de nag wax dëgg yàlla ah waaye jamaïcain nii kenn du ko plaqué yootu ak placage bokkul. waaw daa yóotu placage bi. ah waay non. mu ngi noonu nañ ko seetaan. placage lii la. waay acim. Ah, laay laay da lii. Babacar a ngay waaye yéen gars yi yéen gisoo leen ne Papa booy jinne mi dañoo war a lancer benn pétition mu bàyyi làmb quoi ah ama ah, defaru gën a jàkkaarloog moom man xam naa ne <laughs> xam naa ne patriote yi dinañ ne ma focus waay focus waay bàyyil ñii parce que ñoom dañoo focus mais gars yi yenn saa il faut ñu divertir quoi mun see ñàkk Papa Boy Djiné <laughs> ma leen mooma jaaxal moom ba mu sëyeeg Ndeye Gueye laa gëj a gis mu am victoire Papa Boy Djiné musuma fàttali ko bu mu amee ndam yow pour boo xam ne da ngay daal rek ah mais tamit nag yow tamit bul teg gàcce gi ngay teg Ndeye Gueye doy na dafa bàyyi ñëpp ñëw ànd ak yow ah ñëpp naan wala mag ci sa morom yaay la mu gëmm loolu yëpp ñëw sëyeeg yow yow tamit comme kay doo ko doo ko dimbali nga bàyyi làmb tamit nag bàyyi làmb instant bi làmb ji doxatul. instant bi mbër yi fi jot ay instant bi ñu fi yor ay wéccit mooy ñi nga xam ne dañuy dem ci nguur gi di leen tàggal seeni maam mooy ñooñu noonu mooy gaa yooyu demoon ci nguur gi rek naan leen yéen fi nekk ay yéen la ñuy jàppale wala bu fekkee tamit wala nga dem far si ñooñu comme ça nga dimbali ndegee tuuti demal nga dugg si association ñoom Balla Gaye bi bu ko defee ngay jàppale Ibou Ndafa moo tax ne mais lii lii lii moom dafa métti moom. mbër boo xam ne bu bëree day daanu saa yu bëree daanu sa combat bi passé waa ji da laa téye ci digg géew bi loolu dóor ba sa supporters yi ñoo dugg ci biir géew bi yéen a ngi koy sa supporters yi ñoo dugg ci biir géew bi ate la ak ki doon dóor tey nga ñëwaat man man man <laughs> bi moomu gën a neex nee kii ay entraîneur am dañoo war a fàq yat wax na dëgg bu deful lool na ko ndey ngay def waaye yow kii dafa yab mbokk ay mbokkam quoi yow mënoo bëre saa yoo demee arène ba jóge fa ak ay jooy saa yoo demee si làmb ji ay jooy nga fay jëlee yow tamit booy jinne bàyyil papa booy jinne papa booy defet bàyyil bàyyil munoo nga sigil nday ngay tuuti quoi mais gars yi euh, bref ah xam naa ne gars yi dinañ ne ma focus waaye bàyyi lii nangam nangam patriote da ngeen a focus trop ah mais mënu see ñàkk yenn saa ñu kaf tuuti ah mais dama leen di wax ne le 15 le 15 incha allahu rabbi stade Amadou Barry mooy jour anniversaire Ousmane Sonko ci lañ koy investir ndax moom mooy suñu candidat 2024 le 15 képp ku nekk ci Dakar ak banlieue na nga ñëw stade bu Barry képp kuy wër Moussa officiel daal boo ñëwee Amadou Barry di nga ko fa fekk foofu la mbir mi di xewee bu ko defee foofu la ñu war a investir suñu candidat président Ousmane Sonko te ci jour boobu tamit mooy jour anniversaire am kon nag bu ko benn patriote tardé. yéen ñi nekk ci région yi sax boo leen mënee ñëw ñëw leen stade Amadou Barry moom xam naa ne patriote yi xajuñu fa quoi vraiment parce que <coughs> bu muy xool liy xew ay parcelle ak liy xew ay Kër Massar moom vraiment stade Amadou bari du dara si ñun mais nañ ko feesal rek nañ ko feesal ba mu fees ba ci esplanade bi na fépp fees bu ko defee ñu feete suñu anniversaire daal di investir suñu candidat Sénégal jëm kanam nañ ko laaj yalla aussi man man dama waaru sax affaire bi parce que man ñi may dal malé mon yalla day seetaan ñom ñom ñi may dal man vraiment yalla man xaw man dan la ko def ah ma ngi julli ma ngi ñaan ma ngi def lima wa def mais yalla toujours day adak xalé yu ndaw ñi may dal mais dafa doy war dafa doy war